Monsieur le Premier des ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier des ministres, vous nous avez servi une très belle littérature administrative, doublée d'une très belle poésie politique. Mais je suis au regret de vous dire que ce n'est pas votre vision, c'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État, nous la connaissons déjà. Alors, vous me permettrez de rappeler rapidement, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut espérer de vous, nous, le peuple de En tant que directeur général des impôts et domaines, Monsieur le Premier des ministres, nous avons assisté à un crime foncier, un pillage d'hectares dans la ville de Dakar au détriment des populations dakaroises. En tant que ministre de l'économie et des finances, nous avons assisté à un carnage foncier par le pillage de plusieurs centaines d'hectares, des exonérations fiscales au détriment des collectivités locales et des populations locales. Et bien sûr, vous nous avez montré à quel point vous êtes un amoureux de Dakar en privant Dakar d'un emprunt obligataire, en participant au complot contre le maire de Dakar et en cherchant aussi à contribuer à la disparition de Dakar. Vous voulez bien nous dire maintenant en tant que Premier ministre qu'est-ce que vous nous réservez en termes de massacre foncier, économique et fiscal. Monsieur le Premier des ministres, Monsieur le Premier des ministres kilifa day wax dëgg maa ngi jégalu ci kàddu yi parce que taxaw nga fii nekk def ngeen seen kenn kàttan ba dund bi wàññeeku Sénégal peut-être xam naa yégoo ko parce que qu'effectivement euh, kilifa bu mag nga wante président Macky Sall parce que wax nga fi ay wax yu am solo ne nga créé ngeen fi emploi du ma la tontu parce que luy firndal na ni que emploi xëy amul ci dëkk bi rek mooy immigration clandestine loolu ku mu doyut leneen du la doy taxaw ngeen fii ngeen nekk wàññi ngeen dund bi yan ñaaraan fi kon askanu Sénégal que litre diwlin 1200 francs lay jar. soo génnee ci mbedd bi ku amul 1300 francs doo laal diwlin yéen ñaar na taxawoon ne kilo yàpp di ngeen ko wàññi ba 3600 francs ku fi amul 4000 francs doo laal kilo yàpp taxaw ngeen fii ne 250 grammes u suukar bu nekk dinañu dig 150 francs tey 180 grammes mooy 200 francs monsieur le premier des ministres pour la de Dakar je tiens à vous rassurer en vous disant que nous avons déjà trouvé le financement pour le bassin de rétention de Grand Yoff avec le c pour un montant d'à

François Mankabou a été assassiné. Fulbert Sambou a été assassiné. DJ Badji a été assassiné. 14 Sénégalais ont perdu la vie. Qu'est-ce que vous comptez faire Je vous remercie.